Amadou Diallo Amadou Diallo donner la parole. Monsieur le Président. Monsieur le Président, eh, pour euh, rassurer tout le monde sur la production et la distribution du rapport, comme le stipule le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il faut juste savoir que nous, nous avons trouvé une longue pratique parlementaire. Et une pratique parlementaire, je crois, quand elle n'entrave pas la qualité de nos travaux, elle peut être acceptée. Mais nous prendrons des dispositions pour s'améliorer et essayer de présenter le rapport 24 heures avant la plénière. Il faut savoir juste On est là dans le cadre d'une session budgétaire et chaque jour, sans répit, on doit aller en plénière. Et on a commencé avec un rythme, c'est très difficile du jour au lendemain de changer. Si ce n'était pas cette session budgétaire enchaînée, on peut le Mais il faut comprendre, chers collègues. Je le réitère, nous allons des efforts avec les assistants parlementaires pour pouvoir produire les rapports 24 heures avant et de les distribuer aux plénières. Il par rapport à rapport, je mets quiconque au défi. Personne ne peut le voir ailleurs. Personne. Parce que ce rapport, après la rédaction, on ne le donne qu'au service législatif, qui en fait le tirage, et c'est le matin qu'on le distribue. Si vous avez vu un rapport circuler dans les réseaux sociaux, ce n'est pas le rapport du jour. waaw ma ma waxaat ko ci wolof monsieur le président Donc par rapport à ce rapport, je vous dis, c'est toi-même le mantero. Donc, euh, chers collègues, chers ma jaar ma ñëwaat ci ci wolof très rapidement ngeen jégal ma dem ne règle c'est dëgg la règlement intérieur de l'Assemblée nationale dafa wax ni rapport bi nga xam ne commission technique bi mu ngi koy def dañ ko war a jébbal plénière bi vingt quatre heures avant donc loolu danañ ci def ay effort pour rectifier ko beneen mbir mi par rapport ak rapport bu ñuy wax ni mi ngi circuler bu ñu jaxasee parce que rapport bi man rek maa ko yor en tant que rapporteur général su ma ci paree le service législatif laa koy jox mu tiire ko te bésu plénière bi ci suba rek lañ kay koy su ñu gisee beneen rapport nañ xam ne rapport yu yàgg la en tout cas du bii donc ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp beneen mbir mi nag ma terminer ci jalgati pour jalgati parce que lenn li tamit xeetu jalgati la suñu la joxee cinq minutes ñu la la defal des observations sur le rapport yow nga teg rapport bi fële nekk ci ay considération yeneen loolu tamit wax dëgg yàlla nañ ko xoolaat maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp. Merci, chers collègues. Je propose une suspension de séance pour permettre au président de groupe de... Su président duggatee ngeen jóg. Merci. yow moomoo kenn.